Euh, mu mel na yéen itam warees na leen wax massa di ñaan suñu borom rek mu may ñu ñu dund ba weesu guddi yi te ñëpp fekke kook tal ñu bàyyi leen ngeen déglu àddu yi ñu ñëw ci faram-fàcce gi incha allah. dama bëgg nga jaar fi nga xam ne constitution bi may na la nga repousser les élections. parce que loolu sax dana la may nga mën a def la la dialogue ultime avec la nation pour régler cette situation ndax ñu bari yow président la République xamuñu ne am na côté boo xam ne ci saay nga ko jëlee da ngaa naïf ne sa yaay keroog bi mu génnee àddina maa ñëw taxaw la jël la dëj ba da ku nekk da ku nekk moo la mën a dëjal sa dëju yaay jëlee nga ci moom naïveté te mooy lan bu la nit waxee foo nga ne fenul tappalewul li wax dëgg la ñooñu indiviir nañ la ci ay erreur sori nañ soriloon nañ ñu gën a jege jege loolu nañ ñoo xam ne war nañoo sori affaire bi léegi nekkatul Macky sàll yow gàcce ngaalaama sa wàcc na jox nañ la Sénégal bu xoomaat yaa ngi fi bàyyi Sénégal bu bri buy bri mënoo weesu loolu lu fi nekkoon weñ bu ñuul def nga coy ay question bi réew mi la lii boo ko seetaanee bu doon da nga da nga def passation de service dem umra sax balaa avion yegg ñu oola ne la wàññeeku kon nag bul toog ba mu yegg foofu defal li nga xam ne mooy sa devoir pour sauver réew mi conseil constitutionnel bi mënatu la statuer plusieurs de ses membres étant eux-mêmes reporter élection moom man bokk naa ci sénégalais yi nga xam ne bés buñ ko yëkkatee danaa jàkkaarloo ak ñi ko yëkkati ndax réew mi nag mooy ñu ëpp ñun ñëpp loolu la ñu président Macky Sall yàgg di fàttali. d'accord le pays la patrie avant le parti. ñaareel bi mooy bës bu ñu waxee ba jëf report élection euh, dinañ yàq li Macky Sall liggéeyoon lépp parce koo xamante ni. su dee ci bilan matériel adduna bi yépp d'accord na fi mu yóbbu senegal gàcce ngalaam bu dee ci rayonnement réew mi euh, jaar fi Union africaine porte fi ay discours yu am solo euh, yu jëm ci climat yu jëm ci euh, souveraineté Afrique ba nga xam ne tey jii kooku li ñu ko mën a jàppale mooy rafetal gunge gi ñuy gunge ba keroog ñuy fal président de la république bu bees su ñu bëggee à un mois de l' élection présidentielle ñu bëgg koo taqal ci ay report élection wala ay combinaison yu nga xamante ni ñi ci am intérêt rek mooy ay groupuscule yu nekk ci ginnaawam yaakaar ni moom bu fi jógee xëy na seen aduna day tukki. mais euh, peut-être ñu bëri jàpp nañu waroon nañ mën a bokk. ay ay ay ay kàngam ci damay rappeler ni. 2019 mhm. mhm. Karim Wade nekkoon na candidat ñu éliminé ko benn. damay rappeler ni législative yi passé mhm. dañu éliminer liste proportionnelle tutélaire bu yeewi askan bi terewul élection am damay rappeler ne Karim bokkul waaye Ousmane ko bokkul am na ñeneen ñu bokkul. mbokk yi kon euh, ñoo ko déggandoo. jëkk gi ngeen jëkk a dégg benn màggetum yoor yor la baatam miin ngeen ko xam ngeen ko moom moo taxoon sax moom laa gënoon a bëgg a teg bëggoon a indi nag euh, kàddu yi nga xam ni moo ci topp di rakki Macky sàll Alioune Sall waxoon naa leen ko démb ne déggoon naa ay wax ay bind laa gisoon tey jottali nañ ma weex ji muy wax ne moom képp ku bëgg a dugal Macky Sall ci mu reporter élection yi dana jàkkaarloog yow dana jàmmaarloog yow kon ndokk ba nga xamee ne tey jii leer na ci bopp sénégalais yi ne Macky Sall yi jëfam ji mu jëf ndeke yoo ay màggetu yor yor ñoo ko ko defloo yoo xam ni yii dégg ngeen wax yi mu naan loo fi fekkoon muy or përëm def nga ko or loolu de ay wax la rek moom en tout cas bu fekkee ne moom daf ñoo fekkoon ñu feebar ñun yóbbu nañ ci sukkuraat ba ñenn ñi dee nañu loolu moom lu wér cëng la moom loolu lu wér cëng la kon sooy wax naan lu mu fi fekkoon def na ko or xanaa yow la ko defal or waaye ñun dey wax dëgg yàlla gisuñu or ñun ko defee nag mbokk yi ngeen dégg moom itam rakkam nee na donte kàddu gi mu jotoon a wax am na solo lam ca toppaat loolu moom soxlawuñu ko tey di ñu wax daal lu ma Macky Sall def à travers le Sénégal et à travers le monde à travers l'Afrique loolu moom gis weddi bokku ci bala nga ne naam ne fa fii la ñu bëggoon a wax mu defal ñu fi te man vidéo bu ma def duma ko taaye répété baadoolo soxlawul lu dul li jëm ci boppam ak njabootam boo ko ko defalee wàcc nga wax leen ma nag fii ban baadoolo lañ ko fi defal léeg-léeg nga dégg bu buñ la wax ne la échographie bu Louga bii nag laa wax échographie panne nga xam ne ngay obligé dem dans le privé fay ko fa te fa lay gën a chéré am na ci Louga gi 7 million de francs la échographie di jar góor gi si am na wee at moom ci may ay nit su ko góor gi si jéem ne jënd waxuma la état du senegal kon loolu ay ay natt moom ku ci jëloon di natt fi ngay fanaan fi ngay yendu ci luy wone dellu ginnaawu réew mi kon ngeen xame ne nag li ma leen di wax ne leen Macky ñamu waroon a déglu dégluwu leen mooy peuple senegal ñooñ la waroon déglu waaye di déglu ay xubidaas yoo xam ni jeexal nañu seen benn tànk ngi ci benn bàmmeel ba ca des fekk si na ko ba àgg ca digg ba nga xam ni ñoom dañoo foowee seen dund bees ko li ñuy lijjanti mooy nu ñu àggalee en beauté ci noos nga dem di déglu ñu mel noonu te waroon na moon sax déglu sa rakk ji ndax lii mu lii mu lay waxal nii loolaa doon buntu ba loolaa doon buntu ba bi bi ku jëkk ki bi muy wax loolu muy wax boppam la ko waxal la ko metti yépp weesuwul randal guñ ko randal jël ay xuusmaa ñàpp teg ci wetu Macky Sall loolu la doon wax ko defee foofu la ñuy yem ci wax ji yéen a koy àggaleel seen bopp ci seeni xel ma seetaan vidéo Abdou Latif Coulibaly ci laay dellu si tuuti rek àggalee ko vidéo bi benn journaliste bu jigéen di ko laaj mu ne ko lu tax nga démissionné mu ne ko c'est pour retrouver ma liberté kon c'est un aveu de taille mooy danga nekkatul woon ci liberté daray àddina warula woon a jaral yow Abdou Latif sa liberté kenn kenn kenn di ko entravé dara rawatina na pouvoir nguur ndeysaan Abdou Latif Coulibaly mi nekkoon fii ci Sénégal journaliste chroniqueur écrivain nga xam ne lucidité ba courage ba ñépp nga ko doon saluer loolu mooy dëgg dëgg dëgg dëgg la nga ñàkk waaye du liberté dignité ak crédibilité dégg naa nag ku ne dafa jaay ngoram da ko amul woon kon yoolu moom yaa koy déggal sa bopp li ngay retrouver liberté génn ci gouvernement Abdou Diouf euh, euh, Macky Sall du tax nga amaat lu gën liberté loola nga perte nga waroon a jooy sa dignité ak sa crédibilité durant tout ces année sa crédibilité ak sa dignité ñu ngi koy piétiner nga koy piétiner sous l'ombre d'un homme qui ne se souciait pas de toi ñoruloo Macky Sall la preuve mosulaa jox lu am valeur euh, nga ne am na waxtu yoo xam ne il y des moments de l'histoire où on ne doit pas se ces moment là tu les as dépassés depuis longtemps ñaata yoon nga fi am occasion wax kon soo naan des moments de l'histoire où il faut pas se taire Abdou Latif tu as raté la bonne occasion durant douze ans kenn déggu la nga ne miix nga naan ye des moments de l'histoire il reste un mois à Macky Sall ndaw si ne la est-ce que c'est pas la euh, goutte qui qui a fait déborder le vase nga acquiescer déedéet ñun du ay goutte moo doon toq ci suñu kaw déedéet instant bu ñu nekk ci biir Sénégal boobaak léegi douze ans jëm treize ay tsunami ñoom ñooy bëbb ci biir dëkk bi te fekke nga sunami yépp tsunami yoo xam ne yëngal na si social bi si économique tissu juridique si constitutionnel lépp fekk la fi catastrophe yu rëy xew et tu nga ne ne miix nee nga le président de la république n'a pas le pouvoir de prendre une telle décision encore moins l'assemblée nationale ngay wax lu xewoon 2016 Macky Sall demoon nañu dégg nga mu wër dégg nga pour def réforme de la constitution pour faire en sorte que le mandat de la du président de la République dans sa durer comme dans le nombre de mandats soit érigé en principe intangible loolu bi Macky di def loolu mu doon def 2000 euh, fan la 2000 euh, fan yi ci weer yi at yi ci ginnaaw bi mu ne day yóbbu mandam sept ans lu tax waxuloo ko ko kenn déggu la Macky def na fi lu ne Abdou Latif Coulibaly yaa ngi woon ci ginnaawam yaa ngi woon ci wetam les règles les plus élémentaires du jeu démocratique et de la citoyenneté ont été bafouées et tu n'as pas su nga noppi li ma dégg ci say wax nga ne gis nga ay sondage yu wane ne Amadou Ba était perdant kon si les sondages étaient favorable à Amadou Ba kon doo génn kon doo génn da ngay continuer kon li ma gis mooy bato baa ngi suux kañe yaa ngi daw di génn loolu laa gis man bato bi suux na kañe yi génn nañu journaliste bi mi ngi wax ak yow proposé la ñetti expression ne la dérive autoritaire ou coup d'état constitutionnel ou recul démocratique dérive autoritaire jaay doole ndax coup dañoo jël constitution bi jàpp ko wala boog dellu ginnaaw la ci démocratie ba mu la ko waxee da nga ne ko tu n'as pour qualifier cela loolu nga wax tu n'as pas kon mooy yooyu yëpp moom waxaale woo ko moom waaye xamoo sax looy wax lu gën a garaaw loolu yow nga ne Macky Sall dégluwu la dégluwu la c'est vrai comme tout le monde il n'a pas xëy na magum yor-yor mi ma leen jëkkoon a tegal xëy na moom la déglu ndax dafa mel na ay waxam moo gën a méngoo ak li Macky Sall def. nga ne ñaar dafa sacré ci yow la république et l'État et que personne n'a le droit d'affaiblir la la république. La république c'est un peuple un but une fois loolu xam nga ko yaa ma ko gën a xam ñaata yoon yow Abdou Latif bali nga nekk ci réew mi des gens sans scrupules di saper les fondement de la République pendant des années nga ne mat pat noppi ñaata xanaa tey nga mën a nekk di wax des gens yu koy remettre en cause les fondement de la religion de de la de la République ci sama jëntal wax maa ngi dégg nga ne def nga ay tour wàcc nga sur le kii sa département nangam nangam gisoo woon ñu posé benn acte buy wane ni élection dina am maanaam eh, urne yeeg eh, kii yeeg formation yenn kii yeeg loolu lépp gisoo ko woon kon kay booba nga waroon a wax ca kaw booba nga waroon a wax ca kaw ne hé man kat li may xeeñ neexuma ndax bu élection musaana jub si lu jiitu ñetti weer dañuy nekk ci ay yëf yuy wane ne yëngu-yëngu yu jëm ci élection la loolu nga waroon a wax waxoo loolu nga ne pat ba Macky Sall def li mu def nga gër wër di wax yow it la ma la waxoon rek lay répété ci beneen anam ferme ta gueule on n'a pas nga ñuy tànqal nekkal ci li nga ne wala nekkal ca la nga nekkoon wala lu bees lii nga ne nekk ko te demal nga toog sa kër te noppi wait and see asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.